gan gi Pape Birahim Touré euh, nekkoon député ci assemblée nationale jiite woon commission des affaires étrangères euh, nekkoon itam maire bu Jaxaaw bokk ci alliance pour la république APR ñu ngi lay nuyu honorable di la dalal jàmm ci matinal beeg beeg te Euh, maa ngi lay fay di la nuyu yow eh, di wane sama contacté ci participer ci émission bi ci suba teel. Mhm, jërëjëf réew mi di tiis wi di émigration clandestine en tant que député bu jiite woon surtout commission des affaires étrangères ban jàngat nga def ci phénomène bi ak ni mu amaatee doole ci Sénégal. mais Fatou xanaa di ko méttiwul rek di ko méttiwul di ko ñaawlu. donc ndaxte bu fekkee de suñu ndaw réew dañoo toll ni nga xam toll nañ ko ak ndaw Afrique yëpp donc di jël gaal ak risque bi mu àndal yépp donc nga xam ne ñu ci bëri dañuy ñàkk seen bakkan ci yoon bi euh, war a dem tugal wala Europe pour liggéeyi foofu euh, bàyyi seen réew euh, man defe naa dama koy ñaawlu di ko naqarlu parce que loolu amul dara loo xam ne jar na nga jël gaal te mu wóor ne yow fi nga jëm ni am nga chance yu bëri pour mën faa bañ yegg gaal gi diig yow nga ñàkk sa bakkan hmm. <clears throat> sa réew ñàkk la say mbokk ñàkk la sa continent ñàkk la muy phénomène boo xam ne yàgg na euh, donc laal na Afrique yëpp mais euh, de plus en plus day dem ba ci kanam mu wàññeeku demaat ba ci kanam mu jóg euh, loolu nag bu fekkoon ne sax dara jaru ko surtout que fa nga xam ne fa la ñuy dem wax dëgg yàlla lañ fay wuti am na seen réew ndaxte bu fa bu ñu fa demee dañuy béy bu ñu fa demee dañuy liggéey te loolu buñ ko defee seen réew donc de nañ ko mën a am. mais est-ce que loolu njariñ lim leen amal foofu mën nañ koo am fii. parce que fii ñu ngi wax ne état bi teg na politique yu bëri mais ñi ci war a jot jotuñu ci. ah kay ñu ngi ciy jot Fatou. Hmm. cest à li ñuy def foofu. ak la leen fay yóbbu. ko defee fii. dajale ko gëm ko. gëm ba ñu gëm euh, jël gaal bi jël gaal ba traversé. ak risques yi buñ ko defee fii Fatou dinañ ko dinañ ci dinañ dinañ ci am parce que nag fii am na jeunes yu bëri bëri bëri bëri yoo xam ne. ñu ngi fiy def seen activité seen activité yi ciy def lu ci bëri euh, nguur gi moo teg ay jumtuwaay yoo xam ne dafa na jeunes yi yor ngeen ñu mën a ñëw mag gunge leen ngeen def seen liggéey te jumtuwaay yooyu xale yi euh, am na ñu bëri ñoo xam ne comme lu ñuy wax xëyu ndaw yi xëyu ndaw yi te am na xale yu bari yoo xam ne recruté nañ ci boo demee ci commune yu bëri di nga gis ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci biir commune yi te ci cadre xëyu ndaw yi lañ leen lañ leen recruté mais it Euh, xam nga ne amoon na recrutement bu bëri boo xam ne état bi def na ko ci wàllu éducation hmm. recruter fi ay enseignants ci wàllu police ak wàllu fonction publique donc état bi mu ngi recruter mais xam nga recrutement boobu du moom mooy mun a lijjanti li nga xam ne mooy problème mu xëyu ndaw yi dafay am loo xam ne aussi am na ay instruments yu état bi teg muy DER bi muy ANPEJ muy ANIDA muy financement FONGIP ak yeneen projet. financement yooyu tam nee nañ seen i militant doo nga ciy jot. non non non financement yi. ah euh, moom kay li ñuy dégg rek laa lay jottali est-ce que. Euh, mun ngeen ci indi xëy na luy gëm loo nit ñi leneen. déedéet Fatou xam hmm. nga ñuy ñuy wax loolu. Hmm. dañ koy wax en général te duñ ko teg fenn. Hmm. te boo xoolee politiciens yi rek ñoo koy wax. nekk ci opposition bi bugg a yàq lu baax ak lu rafet li nga xam ne nguur gi mu ngi koy def mais boo xoolee tey euh, programme yooyu nga laajte ay jeunes yoo xam ne dañ ci bénéficier Euh, am ay activités yu ñuy def mais programme yooyu mu ngi dox te ay milliards ak lañ ci dugal te bu ñu cumuler milliards yi ñu dugal ci programme yooyu yëpp mais dafa nekk ay milliers ay milliers de milliards yoo xam ne tey ci jeunes yi la dem donc agriculture bi tey am na wax nañ léegi cent milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci donc tey boo xoolee euh, Fatou kilo dugub mu ngi jar sept cent et quelques huit cent daanaka romb na ñaari yoon kilo ceeb mm-hmm. ta ñi nga xam ne ñooy jeunes yi ñu ngi bàyyi tool yi ñëw ci dakaar wala ñëw ci capital yi wala ñu jël gaal jël risques yi te suuf si ñu am buñ ko développé woon lañ cay am moo ëpp li ñuy am fi nga xam ne fa la jëm donc loolu <coughs> wax dëgg yàlla sooxewul ci réew mi li sooxe kañ mooy que dañoo war a wax ak xale yi wax ak jeunes yi pour que ñu xam ne loolu du solution te nag aussi dem bi du problème emploi rek am na koo xam ne boo ko joxoon sax tey projet dana dem parce que dafa am rêve boo xam ne dañ ko gëmloo ne ko yow boo demee ci bitim réew foo nga gën a war a mun a amee te loolu amul donc day dem ba foofu rendre compte que loolu amul ba pare mu rusee ñib si lang foofu donc am na ñoo xam ne nag dañoo war a wax ak jeunes yi donc muy ñi nga xam ne ay porteur de voix lañ mu nga xam ne opinion lañ man xalaatuma ko ci opposition bi nag. parce que hmm. opposition boo xam ne da ngay euh, sos di wax ne xale yu toll ni lim bi nga xam ne wax nañ dee te gisuloo ko amuloo firnde. donc ndax politique jaral la nga bëgg a rey say ndaw réew xam nga ñooñu mënoo xalaat ci ñoom mais parents yi lay wax ak ñi nga xam ne dañ leen dénk ay gune muy tuteurs yi am nañ ci responsabilité boo xam ne war nañ mun a euh, wax ak xale yi mais aussi jox leen formation parce que buñ la dénkee gone donc ba mu am yenn âge jàngaloo ko école jàngaloo ko métier donc jàngaloo ko dara loo xam ne mun na ko jëfandikoo ci àdduna mais lor nga xale boobu. Mm. te muy parent bi muy sëriñ bi muy képp koo xam ne dénk nañ ko war na buñ ko joxee xale bu xale boobu matee pour mën a def dara war na fekk mu nekk dans les disposition def ko mun a liggéey te loolu aussi. donc parent yi nañ ciy wéy. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne dénk nañ leen ay gone ñu gën ci farlu pour mun a jox xale yi formation parce que état bi développé na li nga xam ne mooy formation professionnelle di construire ay centre pour dimbali ndaw yi aussi ñu am métier. Mhm. donc loolu yëpp donc dafa nekk responsabilité aussi citoyen yi parents yi ak ñi nga xam ne ñooy jël gaal di dem parce que seen responsabilité bu njëkk la que ay magum jëmm lañ. war nañ mën a xam lu leen jig ak lu leen jigul. Mhm. donc vraiment situation boo xam ne la donc ñëpp dañ cee war a wax ñëpp dañ cee war a jàpp. Mhm. parce que ñii dem man tama jàpp ne dañoo réer te ñi leen di encourager ci loolu du ñu encourager seen doom. donc dañuy toog ci rajo yi ak télé yi di wax rek waaye duñu wax benn yoon seen doom jël leen gaal. dem leen dugg ci géej gi jël aventure boobu. lu ci assemblée nationale waxoon législature bi passé euh, problème bi ñëw na fa lu bëri yoon nga jiite woon commission des affaires étrangères lan ngeen ci jàppoon comme solution euh, boo xam ni xëy na buñ ko doxalee yëf yi wàññeeku doonte du dakk waaw daan nañ ci waxtaan lu bëri nag ci assemblée nationale daan nañ ci waxtaan lu bëri et chaque fois ministère des affaires étrangères daan nañu indi ay leeral ndaxte xam nga. dafa am ay sénégalais yu bëri yu nekk extérieur yoo xam ne dañuy am jafe-jafe mais aussi dafa am ñoo xam ne dañuy jël euh, kii bi euh, gaal gi di dem. Hmm. mais xam nga situation yu mel nii souvent pour nga xam li xew sax jafe-jafe la parce que kii dem du la tàggu kii dem yëgluwul yoot dem pour nga xam nombre bi. Hmm. jafe-jafe la mais ñu fa yeggee. li ñu doon wax mooy. mais am na liggéey boo xam ne war nañ ko liggéey en tout cas ñëpp ñi nekk ci euh, affaires étrangères pour mun a xëy na am ay xibaar ci ñooñu. ak euh, mun a xool naka la ñuy saafara yëf yi. waaw waaw non dinañ ci liggéey seen kéemtalaay kattan. Mm. <coughs> pour mun a am information bu ñu joxe mais bokkul ak information boo xam ne dafa disponible tey nga am ko ci sa base de données. parce que mm. kii dem du la tàggu day yot dem. Mm. te bu demee du déclaré wu ci consulat yi. wala déclaré wu ci ambassade yi pour nga xam ne kii mm-hmm. ñëw na fa clandestin la donc kooku dafay jafe nga xam lim bi. te aussi des fi accident yi di am. donc daanaka duñ ko fekkee nit ñi dañuy wër ba gis ñenn ñi ñenn ñi duñ leen gis. donc dafa nekk situation boo xam ne. Hmm. maintenant fi ñu ci doon waxtaanee mooy aussi ak gouvernement bi. Hmm. di leen wax ne nan ngeen def pas pour ndaw yooyu mais de façon générale pour ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy wut liggéey eh, mais wax dëgg yàlla ci instruments yi nga xam ne cité naa la ko fi léegi. Hmm. lu ci bëri ci jamonoom ci lañ yokkee seen doole mais ci lañ leen créer mais aussi ci lañ voté ay budget ak ay ressources pour dooleel. programme yooyu comme lu mel ni ANIDA joxoon nañ leen fi xaalis bu bëri lu mel ni DER wote nañ leen xaalis bu bëri jamonoom lu mel ni euh, euh, ANPEJ lu mel ni aussi les ministères seen budget yokku na parce que budget Sénégal bi denkoon deux mille euh, trois cent xaw ma moins de deux mille cinq cent milliards ci deux mille douze dem ba sept mille milliards yi nga xam ne moom la ñuy projeté donc xam nga ne kooku ci population yi lay dellu te dañ ci am part bu rëy boo xam ne dañ ko plaidé woon pour que mu dem ci ndaw yi te gis nga président de la république donc euh, bi nga xamee ne amoon na rencontre bi amoon ak ndaw yi donc jëloon na lu toll ci quatre cent cinquante milliards def ko ci xale yi te xaalis boobu tey dugg na ci jeunes yi donc du problème boobu moo am man dama jàpp ne problème mu emploi bi donc liyeewul sax ak problème mu immigration mais euh, clandestine bi nga xam ne dañ ko xale yi dañ koy def di ko jaarale ci géej gi dama bëgg a rek ne am na en tout cas offre pour la jeunesse. ci jeunesse bi nga xam ne bëgg na toog ci réewam bëgg na liggéey ay nangu na liggéey aussi Fatou parce que aussi nañ nangoo liggéey. Mm. xam nga dafa am lu bëri loo xam ne euh, suñu waxul suñu jàngoro du am saafara. Mm. liggéey rek moom mun a indi résultat te liggéey bi mënul weesu suñu tool yi mënul weesu sunu géej gi mënul weesu suñu élevage bi parce que bu ñu jógee ci dëkk taax yi donc ci dëkk kaw ga bàyyi fa sunu tool bàyyi fa sunu élevage bàyyi fa suñu lépp. donc l'exemple et la à Dakar dañuy ñëw toog Dakar euh, nekk fi te li nga xam ne moom lañ fi def comme activité condition yi nga xam ne moom la ñuy vivre Dakar donc euh, suñu condition yi ñu bàyyi ci kaw ga moo ko gën fop donc li ñu am Dakar bu ñu songoon suuf si dëkk kaw ga dinañ ko am lu ko ëpp parce que l'exemple et la boo jëlee kilo dugub tey romb na ñaari yoon kilo ceeb te euh, tool yaa ngi fi nawet baa ngi nii donc dugub boobu boo ko béyee jaay ko donc incha allahu rabbi di nga ci am ressource comme gerte gi aussi. Mhm. gerte ay kilo cent et quelque lañ doon wax mais tey béykat bi day béy ba pare am njiwam am am gerteem. Mhm. mun ko jaay kilo cinq cent franc te loolu yëpp nekk ay milliards dafay delluwaat ci béykat bi dafay ci agriculture. est-ce que au niveau local. Mm. Hmm. waaw laal ta waxtu bee ñu tàmbalee dab jàpp naane ne daal. Hmm. ki nga xam ne amuloo activité fii ki nga xam ne woowuñ la tugal donc bu fa dem. ki nga xam ne amuloo activité dans les capitales ndax da nga dem di fa toroxlu bu fa dem demal sa dëkk nga toog fa di nga am ay meilleures conditions yi nga xam ne moom ngay dundi dignement ci sa kër mais aussi di nga am sa tool yi nga xam ne say maam ñoo la ko bàyyi nga développé ko développé say activité yeneen yi nga xam ne am nga ko fa. Mhm. honorable ñu jàll ci wàllu politique waxtu wi dab nañu lool. Euh, ndax yaakaar nga ni jaadu na euh, gouverneur décision bi mu jël aaye euh, meeting d'investiture bu PASTEF ngir seen candidat Ousmane Sonko meeting bu ñu naroon def ci cadre fermé maanaam stade Amadou Barry bu bu Guédiawaye est-ce que lu jaadu la dëgg-dëgg. waaw man dama jàpp ne lu jaadu la parce que xam nga nag gouverneur moom mooy kilifa. li nga xam ne moom mooy kilifa région bi li ñuy wax représentant de l'État bu dee préfet mooy ko ci département bi bu dee sous-préfet mooy kilifa di représenter président de la République ci li nga xam ne mooy arrondissement bi donc ñoom rek ñoo am jumtuwaay parce que ñoom ci seen mission ñoo mën a wax ma gendarmerie xoolal ma lii ñoom mun a wax police xoolal ma li ñoo mën a wax renseignement xoolal ma lii loolu yëpp ñu teg ko ci taabalam mu apprécier donc moom moo mën a xool lan moo moo undu donc aaye bi te wax na ko donc euh, loolu aussi dañ ko koy nangul ndax euh, buñ ko euh, yu bëri autorisation yu bëri joxe na ko fi ñu def ay manifestation def ay rassemblement donc ci jamono yoo xam ne amuloon risque à de l'ordre à de de trouble à l'ordre public amuloon risque aussi ñu menacer activité nit ñi xam nga nag aussi Fatou dafa am loo xam ne hmm. dafa commencé bëgg a law ci Sénégal ndaxte nit ñi manifester tuñu nit ñi dañuy toj alalu jàmbur yi ñi xam ne su ma ne nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy woote loolu di waa Pastef hmm. manifestation bu ànd ak ay toj Auchan manifestation bu ànd ak ay toj station manifestation bu ànd ak ay taal pneu nga xam ne kenn du dem kenn du dikk surtout que seen leader bi ci boppam moo ko woote te surtout que seen leader bi ci boppam moom mooy euh, organiser li nga xam ne donc ay ay militants am lañ pour oo leen ne leen dem leen ci violence ba euh, mu jural ko li nga xam ne moom la moom moom moo moom la ko jural ci li nga xam ne mooy membre Pastef yi xam nga partie de violence aussi man euh, je comprends le gouverneur te su doon man du ma xool lépp loo xam ne dama ko war a jël comme mesure pour aar sénégalais yi pour aar seen bien ma xam ne lii ci loolu la jëm pour yàq euh, ay biens sénégalais pour euh, yàq ay liberté de circulation des sénégalais ma bàyyi ko mu yegsi déedéet dama koy fànq bala mooy yegsi te ñëpp kuy sénégalais war nga mun a xam ne ñii nekkatuñ ci rassemblement ñii nekkatuñ ci marché pacifique ñii ci lu ñu nekk mooy bëgg taal réew mi lii ci li ñu nekk mooy bëgg a créer désordre public te loolu aussi benn autorité war ko nangu te damay demander aussi les autorités sénégalaises ñu jël seen motuwaay parce que ñii wane nañ seen ambition affichée de mettre le Sénégal au kaw de créer le désordre public face à une telle euh, euh, volonté donc l'État doit rester ferme jël ay mesures parce que nag li fi nekk ci Sénégal yi dañoo bëri dañoo war a xëy def seen activité dañoo war a xëy dem daani seen doole dañoo war a xëy dem ci seen activité sociale mais aussi seeni bien ak seeni moom moom ñoom ñoo ko moom liggéey ko dañ ko war a préserver hmm. leneen aussi muy bien public Sénégal dañ ko war a préserver te waruñ ko yàq te gis nañ ay manifestation yoo xam ne dañu foogoon ne ay manifestation politique la ndekete ñoom dañu organiser ay ay saccage gis ngeen lu muy jural. d'accord honorable kan ngay xaar président Macky Sall tànn ko tey euh, ndax ñu ngi xaar tey ji choix wam ngir euh, kii doon candidat benn bokk yaakaar ci élection bi kan ngay xaar mu tànn ko tur yu bari tàmbalee génn Amadou Ba ak ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ak ñooñu yaakaar nga mu tànn ci kenn. man de Fatou damay def ni nga xam ne moom la formation politique yi def. mooy nan ndaxte boo ànd wóolu ko. Mm. moom aussi mu jox la cër wóolu la ba ñu toll fii na nga daan def rek da nga koy def mooy président Macky Sall yow ñu ngi lay déglu pour que nga tànnal ñu njiit comme ni nga ko doon defee ci yeneen circonstances te loolu defe naa ne moom moom mooy suma suma kaddu. yaakaaroo tànneef gi moo war a nekk kaddu ñëpp. waaw d'accord yaakaaroo tànneef gi tasaare leen. yéen waa APR ak benn surtout. déedéet mënuma wax nag ne. tànneef bi moom xam naa ne euh, tànneef bu ñu mës a def même muy maire yi même muy député yi dina xam ñoo xam ne d'accord ñu wala mer nañ hmm. waaye li ma jàpp mooy ku tànn kenn danga bàyyi keneen hmm. nañ ko def confiance comme niñ ko doon defee confiance parce que à chaque fois ku ñu defoon ko confiance mu tànn yàlla may nañu ci ndam donc nañ ko def confiance bàyyi mu tànnal ñu donc ki nga xam ne moom euh, moo réunir critères yi pour mun ñu jiite jiite Sénégal ñun ñu dem campagne yi man de loolu laa gis. Hmm. maintenant ay tur yi génn mënul ñàkk parce que nag euh, Sénégal moo bindoo noonu. Hmm. ndaxte muy ay militant muy ay journaliste muy ku ci nekk yaa ngi xalaat ne kan la war a doon di génn ay tour mais man jàpp naa ne euh, tour bi daal président Macky Sall moo ko war a génne. yow xalaatoo kenn non no non xalaatuma tax man damay dama xam nga lu ma lu ma lu may demande Fatou. Hmm. lu may découragé. mooy ñu bañ a nekk fii di euh, naan diw ak diw ak diw ak di def propagande. ñi nga xam ne ñoom ñoo yaakaar ne ñoom ñoom lañ war a tànn mm. bu fekkee ne dañuy def propagande di wax ay nit nañ leen tudd mm. nañ ko bàyyi ñi nga xam ne bëgg nañ ñu tànn leen di wax ay nit ñu tudd leen ñu bàyyi leen ko même bu fekkee bu fekkee defuñ ko ñi nga xam ne ñu ngi tudd ay nit di def ay campagne gis nga loolu mm. mooy yàq lu bëri nañ bàyyi loolu nañ bàyyi sans pression ki nga xam ne mooy njiit bi ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci coalition bi ñu tànnal ñu le meilleur profil mais loolu jëriñul dara def ay campagne hmm. déguisé diw la diw la diw la donc di indi ay problèmes yoo xam ne su fekkee ne euh, arrêté wuñ ko mun na dem ba ci biir sax mu yàq dañ bàyyi hmm. sans ku ci nekk président tànnal ki ñu war a tànnal très bien d'autant plus que ñu ngi koy rafetlu aussi hmm. ci décision bi mu jël parce que am nañu ay chance de gagner ndaxte am na bilan bilan boo xam ne kenn du ko naatable mais jël na benn décision historique bu ne du présenté ci présidentielle yi du ñëw te loolu Afrique ak monde bi yëpp ñu ngi koy saluer mais surtout am nañ ay atu ndaxte ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarlul muy opposition bi amuñ programme amuñ projet li ñu am daal mooy saaga ak sos ak wax lu xam ne du dëgg ak yàq euh, dëkk bi euh, di créer de l'insurrection. jërëjëf Pape Birahim ñu ngi lay gërëm ci teel a yeewu beeg waxtaan beek ñun euh, ci matinalu Rewmi FM fàttali ne député nga woon jiite woon itam commission affaires étrangères nekkoon maire Diakhao bokk ci APR jërëjëf. mais Fatou maa ngi lay gërëm di la sant di wax ne mbégte la woon pour pour man di participer ci émission